radiyallahu taala anhu wa ardaahu moo ngi jiital ci nuyoo bi Cheikh Mouhamadul Muntaxa di ko ñaanal mu yàgg fi loolu te wér di teg nuyoo boobu nag ci loxol sunu kilifa gi toog ci sumu biir di làmmiñu sëriñ bi di ay tànkam di bëtam di Cheikh Mouhamadul Basir ibnu Cheikh Abdul Qadir Mbàkke radiyallahu sëriñ bi jataay bii nga xam ne moom la waa diaspora bi yàgg am ak yow muy taalibe Serigne tubaa yéen ca foron ba te dafa liggéeyal sëriñ tubaa liggéey bu wér nga xam ne ñoom dañuy gàttandu waxi Serigne bi fustu la daa galwaa wa inda ba fali bi ma bihi uniiru kulla max fali loolu ñoom ñu gàttandu ko dafa def liggéey bu ama am solo at mu jot ñuy teew ci sa kanam ñépp ñëw nañu Europe ñëw na Amérique ñëw na Asie ñëw na Moyen-Orient ak fi nga xam ne mooy Afrique dañuy jox rek ki nga xam ne moo baaxoo dirise jataay bi di Serigne Ahmadou Bamba mbubb teewal fi waa France mu lim délégation bi ak réew yu fasantikoo yi ñu bàyyi ko kenn ku ci nekk dinañ la may nga jël kàddu ci lu gàtt buñ noppee sëñ bi dénk nu la nu daan dénk ñaanal nu nu yeewiku sëriñ bàmba bismillah alhamdulilahi rabbil alamin ñoo ngi sant yàlla bu baax ci sunu kanam kilifa gi toog di cheikh ahmadou bachir moom sëriñ abdou xaadir yor baatub kilifa ak yoonu murid wépp di sëriñ muntaxa ñuy sant yàlla ci toogoon ak moom fii daaw ba yàlla mayaat nu nu dellu siwaat fi moom ñu ciy sant yàlla bu baax di ci sant sëriñ tuuba di wax ne ni ko sëñ Ibrahima waxe léegi rek sëñ Ibrahima Fall mboolem diaspora bi yëpp ñu ngi fii la dalee Japon la dalee États-Unis la dalee Espagne la dalee Afrique mboolem fu diaspora bi ne rek xam leen ni tey ñu ngi fii teew ñu di ko séeréel di wax ne sëriñ bi yàgg na wax ne kataba allahu tabaraka wa anna kaatiba fi haadihi al urufi sa yuxaatibu nasaara fii uqli daarihim yéen tubaab yi may xeexal maa ngi waxante seeg yéen fu ngeen amub roq dinaa leen fa fekk loolu nag moo waral tey sunu tukki bii nga xam ni ku ne jóge na fi barab ñëw fii fi yow jonjoo si ak murit yi fii ci sa kanam ñuy xamle ne rek sëriñ Moussa njaay moo fi nekkal waa Japon mi ngi nii toog sëriñ Papa Demba si sëriñ Papa Demba Dia yor mbirum émigration ca itali mi ngi nii toog sëñ Mbay Teen ca Gàmbi toogal fa itam Touba jëm ca kanam mi ngi nii toog sëriñ Daam Loo jëwriñi Touba Ibiza waaye président de la fondation Xaadimu Rasuul ca Espagne mi ngi toog sëriñ Naar Mbay moom itam mi ngi nii toog di kenn ca waa 18 safar rabitatu wasilatu rubo mi ngi nii toog Milan ak li ko wër Serigne Cheikh Mbacke Mbuub ñëpp xam ko ci liggéeyal Serigne Touba nekk communicateur waaye nekk koo xam ne nii euh, mu ngi yor information yu bari te di ko doxal mi ngi nii toog ci suñu kanam moom itam nekk ku mën a faciliter. liggéeyu Serigne Touba Serigne Khadim Thiam moo fi toogal Norvège Serigne Ablaye Diop Touba Suède ñii ñooy ñi nga xam ni ñoo fi toogal diaspora bi yépp tey waa Japon ngi nii moom laa jëkk a lim waa Japon ngi nii toog sëñ musaa Ndiaye ak ñi mu àndal kon xam naa dañu jot damaa jot te bind ñooñu waaye comme ñëw nañ rek baax na kon sëriñ bi ñooñu ma lim sëñ Modou mbay sëñ Modou mbay caam waaw Touba Monde bi xasida online mi ngi ni toog moom itam di assure lu baree bari ci jasporaa bi kon sëriñ bi ñu ngi dellu di la ziyaare di la wax ni ñii ñooy ñi nga xam ni ñoo jóge ci jasporaa bi di bëgg nag lool ci fekk si la fii nga toog di ñaan toogaay bi yàgg ci barki Xaadimu Rasuul di ñaan nga yàgg fi lool ba mën a liggéeyal sëriñ bi li nga ko bëgg a liggéeyal kon xam naa dañu bëgg jox kàddu gi sëriñ musaa Ndiaye bismillah okun muy sanala min sari si asidin ma sari famin wa sari alin yàllaahu wa sari sirin wa sari xalin simo ma jinnihim wa sawati sumi yàllaahu asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñu ngi sox suñ nuyoo ci suñ jëwrin sëñ Bamba ngir gàttal kàddu gi rek ñu ngi ànd ak suñu jëwriñ suñu Abdoulaye Guèye moo ñu nekkal fii ci Sénégal bu ko defee ñi ngi ñëw ci turu sëriñ Fallou ak sëriñ Sidi Diop di xamal sëriñ bi njaboot gépp ànd nañ mbooleem kër yi buntu kër sëñ Touba yëpp ña nga fa di liggéeyal sëriñ bi ci la tasimo bi suñ na teeg la mu wax lépp ci ab taal bi fu mu war a nekk na mu fay nekkee rek bu ko defee ngir gàddal kàddu yi lenn rek lañ bëggoon yëgalaale la ko maanaam ren yàlla day def ñu màggale ci kër goo xam ne nii xaadimal mustafa moo koy moomal boppam loola at yu yàgg yàgg ñi ngi koy wut mënuñu ko am ren nag yàlla dogal na ko mu toll ci 1750 mètres carrés waaye nag euh, këyit yaag fay ba matagul te itam dañoo déggoon ñu ne lu ngeen dégg boo ko ak lu ngeen déggul moo tax nag kàddu yooyu ñu bëggoon koo jotal ba nga dégg ko ndax euh, jéego yi gën a mën a gaaw maanaam daal ci loolu mooy gàttal ñi ngi siyaar naag njaboot gépp a nga fa Cheikh seek waa kër Cheikh Béthio ñëpp rek bokk ànd di liggéey kon ñi ngi siyaaraat bu baax di ñaan taxawaay bi yàgg ñu yàgg koo defee nii ba keroog àjjana ni ko sëñ Mountakha waxe woon rek asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. sëñ Moussa mi fi toogal Japon ak ñi mu àndal sëñ Papa la ñuy jox kàddu gi aousubillahi min alsheytan irajim bismillahi irrahman irrahim asalaamaaleykum wa rahmatullah eh, seen mbokkum taalibe dem ba Dia eh, jóge fële ca Toscana di yëngu ci wàllu immigration di ab ndongob daara bokk ci fédération eh, Cheikhul Khadim bu Touba Toscana ginnaaw bi ñu santee yàlla nag ñi ngi jox sunu nuyoo bu sell sëriñ Cheikh Bass di ko wax mu joxal ñu ko sëriñ Muntaxa di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wér euh, di sant yàlla nag ginnaaw bu ñu amee tawféex ba fekkee lii euh, di ci seede seede bu ndaw rek ndax ñun gox bee ñu jógee ànd ak sunu ay mbokk yi nga xam ni ñoo féete fële ca itali euh, ñu ngi fay def sunu waa wàll ci liggéey bi ndax nag ñëpp xam nañ ni itali bokk na ci communauté mouride bi nga xam ni jamono ji ci diaspora bi Euh, gën bokk nañ ci ñi gën a yëngu yàlla defal ñu tawféex léegi ñu commencé di tënku ci ay fédération euh, ni ko sànq sëñ Bamba waxee rek Toscana bokk na ci fédération bi nga xam ni moo sos loolu ubbi ko tey jii am na fédération Veneto am fédération 18 safar nga xam ni kuréel yu ay gox gox goxaan yu rëy la ñu boole loolu li ci li tax mu am solo mooy dafa nekk maanaam euh, ab dayo ci wàllu politique ndax tubaab dañu xam ni tubaab mbooloo rek la fonk ñu nekkoon nag ay mbooloo yu sew sewaan yoo xam ni dëkk boo dem am na fa daayira waaye jamono ji mën naa ni euh, fédération yooyu dafa am solo ba nga xam ni léegi daanaka bari na yu ñu nangul ci wàllu euh, reconnaissance loolu moo ñu ko may ñu amit taxawaay bu am solo fii ci tuubaa boo xoolee bari na liggéey yu ñuy def nga jël ko ci toskaana jël ko ci Touba ca kanam jël ko ci fédération Maam Jaara yi mën naa ni Italie bu jiituwul ñi ci jiitu bariwul loolu nag doon tawféex boo xam ne dañ ciy gën a sàkku ñaan rek ah ak it gën a soññ dëkk yi nga xam ni ñoo ñu jege lu mel ni ay France yeneen dëkk yi parce que nag loolu mooy mën a tax tey jii muritu diaspora bi tënku ba nga xam ni tey jii sëñ bi bu fettesoo benn liggéey ñun dañuy doon benn mbooloo mun koo liggéey ndax nag fekk demuñu ba nga xam ni tey jii bu ñuy siyaar benn benn jëwriñ rek mooy wax ci turu àdduna bi yëpp day mel ni liggéey bi soo soosteegul kon ñu ngi tuub di jégalu ci kàddu yi bu guddee jërë ngeen jëf wasalaamaaleykum wa rahmatullah sëñ Mbay Teen mi nga xam ni moo fi toogal waa Gàmbi asalaamaaleykum wa rahmatullah Cheikh Mamadou Basir noo ngi lay ziare ci turu sëriñ Pape Demba Diop mi fa nekkal Cheikh Mouhamadoul Mountakha nee na mi ngi lay nuyu ak mboolem tali bi sëñ Tuubaa yi mu àndal ci liggéey bi yépp féete ci réewum Gàmbi bi njëkk mooy namu nañ la lool ci barab boobu nga xam ne mooy Gàmbi di jottali it nuyoob Cheikh Mouhamadou Moutara Diop mi nga xam ne moo fa nekkal sëriñ Maam Mor ginnaaw loolu sëriñ Pape nee na niñ ko daan defee rek noonu lañ ko defee gannaaw bu ñu déggee ndigal li sëriñ bi joxe lañu njëkk a def rek mooy daaw bi ñu fi bàyyi ko lañ tàmbali woon a waajal màggal gi dajale nañu ñaar fukki million ak benn yu tegal téeméeri junni ak juróom-ñaar fukk ak benn ak téeméeru CFA daal di koy indil Cheikh Mamadou Mountakha bi ñu màggalee Daaru Xuddoos alxames yi ci topp ngir mu defal nu ko ci liggéey yu màggal gi muy waajtaayu bis bi ba na ca noppee waxut ne sëriñ bi nanu ñaanal nu delluwaat ca tool ya nag waaj ngir màggal si bi nu delloo diggante boobu ak léegi jàng nañ fi téeméeri kaamil ak ñeent yu ànd ak xëccëri yu takkoo takku ak lim yu takku salaatu ala nabi waaye bi ñu noppee ci loolu it mbokki taalibe na ci réew ma xamle nañ fa sëriñ bi ak lim bëgg ci bis bi ba fi may wax ak yow ñeenti télévision déparé nañu Gambie tey jii ci suba maa ngi dégganteek ñoom juróom-benni rajo euh, seen euh, batch yi nga xam ne moom lañ war a liggéey it ñu ngi ko doon fàggu ba jàppandi na kon daal Mbàkke fu fi nekk rek yéen a jënd rek li ñu am mooy yaatal yoon wi waaye leeral liggéeyu sëriñ bi wan leen ne sëriñ tubaa l'islam bi set wecc la sëriñ ñu ngi lay sant di la gërëm di la ñaanal suñu borom dëgëral la mottali sa kattan ci barkeb Cheikhul Khadim wasalaamualeykum wa rahmatullah nu jox kàddu gi sëriñ jëwriñ yi Touba Ibiza président de la fondation Khadimou Rassoul aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim nasrun min allahi wa fatun qaribun wa basiril muminina wa zakilu bi wafta an rabbilia fatan mubinan la yura li misliya assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ñu ngi nuyu mbooloo mi di jiital ci nuyoo bi sunu sang bu tedd bi ñu bokkal jataa bi muy Cheikh Madou Basir moom Cheikh Abdoul Khadir mu jàlle leenu ci nuyoo bi ci Cheikh Muntaxa mi fi nekkal Cheikhuna Ahmadul Khadim ñu koy ñaanal wér ak yàgg fi di jaajëf Serigne bàmba ak Serigne Lamp Fall Cheikh Ibra di nuyu mboole mbokk yi ñu fi bokkal Euh, toog ci jataay bi ñu bokk ak ñoom diaspora bi ñuy feddali présentation Serigne bàmba ñun ñoo ngi nekk Ibiza benn il la ci Espagne bokk ci région de Baleares euh, ñu nekk fa di ay taalibe yoo xamante ne liggéey Seexuna Amadul Xaddim rek moo ñu yitteel ba jamono yi ñoo ngi am pas-pasu am kër sëñ Touba foofu ren jii la ñu tàmbaliwaat ak jaayante gu bees goo xam ne dañ koo sof ci ay jaayante yu ñu daan def ndaka jekk ci liggéey sëñ Touba ngir am kër sëñ Touba murid bu nekk ñu sas la 500 euros sëriñ bi na nga ñu ci ñaanal nu am ci jàppandal ñu dem ba ngeen ñëw fa di intégré kër ga bi barakati Seexuna Ahmadul Xaddim ñu nekk ci. fondation Khadim Rasoul Touba Espagne ngir xam ne Espagne am na organisation yëpp ñuy liggéey siñ Touba waaye fondation dafa amagul ñu taxawal ko ñu nekk ci ba ñoo ngi ciy dox jéego yu kawe kawe Mbakke na ngi ñu ci ñaanal ñu am ci ndam ndax lépp liggéey Sëñ Touba la ndax Sëriñ Touba dafa liggéey sunu boroom ba sunu boroom. fay ko fay yu rëy yi mu ko fay ba nga xam ne sëñ Touba mission bi nga xam ne moom la doon def mission la boo xam ne du dagg du am rupture dafay wéy ba faw te ñun murit sëñ Touba yi nu war koo wéyal ba faw lu mel ne fondation nag nekk lu am important lu am am solo ndax fondation bu ñëwee dafay mel ne lépp loo xamante ne ab organisation daf koy liggéeyal sëñ Touba loolee dafay gën a jàpp de moo tax ñu taxawal ko Espagne kon Mbàkke nga gën ñu cee ñaanal ñu ngi lay feddali tamit suñu cant ci Cheikh Mountakha ñun waa Espagne ndax ñoo ngi bokk ci fédération bu Touba Espagne Serigne Mbàkke Ndiaye jiite ko ak kilifa yu tedd yooyu ku mel ni Serigne Mor Tambédou du eh, Serigne El Hadj Abdou Ndiaye Serigne Adi Touré muy fédération boo xam ne macha allah ñu ngi liggéey Cheikh Khadim foofu ci Espagne ñu dem ba Cheikh Mountakha jox nu liggéey boo xam ne liggéey la boo xamante ne sunu njàmbaar may nu ko waaye tawféex la boo xamante ne yàlla moo nu ko jox ñun waa Touba Espagne ñun waa fédération bi muy ñu changé ko moquette jumaa ji ñu def ko ba jébbal ko liggéey boobu. mu joxaat nu kër sëñ Tuubaa gi ci Daaru Marnaan ñu nekk ci fas yéene defaraat meuble bu fa nekk bu manti doon mëbaliwaat kër ga jébbale liggéey boobu laajaat beneen kon nag mbakke ñun waa Touba Espagne saa su nekk rek ñoo ngi dëgëral suñu taxawaay di feddali suñuy pas-pas di soññ suñ bopp ci am yitte ju kawe ci liggéey sëñ Touba saa su nekk bañ ci jóge ndax sëriñ bi dafa wax ne waqdi awaaija na daamoo fii xidmati wa ablahu maaraamu kon nag liggéey bi warul taxaw warul am rupture warul am néggandiku saa su nekk dañ cee war sa nekk te di ci gaawantu ndax inna lazina saara o li xidmati fa lahuma diyaar wastal janna sëriñ bi ñoo ngi lay sant bu baax di la gërëm di santaat bu baax nag ci jataay bi ñu jataawoon ak daaw te tey suñu borom mayaat na ko ñuy ñaan mu may ba faw te sunu borom guddal saw fan wéral la li nga bëgg a liggéey sëñ Touba nga def ko ni nga ko bëggee te ànd ko murit sëñ Touba yëpp jërëjëf. kon dañuy jox kàddu gi rek sëriñ Naar Mbay mi nga xam ne nii moo jóge Italie moom itam yor kàddug raabitatu wasila turubo bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi wa salla abada ala alladi bihi lana alhuda bada sayiduna muhammadin wal ali wa na sabin nawali wali barke borom taif sama attaché Mouhamadul Bachir nuxayikum wa nuzurukum wa naqulu lakum assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbakki noo ngi santaat borom bi tabaraka wa taala du jël julli ci Moustapha sallallahu alayhi wa sallam li yeesa sunu jaayante sa maam gi tëdd ji lu mu tukki bu yàgg bu ci sëriñ ci bu doon bi Cheikhuna Ahmadul Xadim yàlla na ko yàlla fayal di ñaanal jëmm ji nga xam ne moo toog jotaayam muy fadilu Cheikh Mouhamadou Mountakha yàlla na ko fi yàlla yàggal lool mbàkke te bu gestoo gis ñu di la sant di la kañ mbàkke ci sa taxawaay bu rëy boo xam ne dafa firndeel ay ndam yu fasanti ko ndax kat mbàkke bu samaam ne daba bu raybati ya an allaha arada an anala min ujaa wan akuna shafiyan li xaw mi wa an akuna xaadiman fi daw mi su amul woon ndam jotaay bi du am mbàkke damay wax ne débâcle bi gën a mag mooy defit bi gën a mag ci histoire humanité ci coloni colonisation mooy diggante Serigne Touba ak tubaab bi ndax ñii fi sa wet wër la muy kàngami diaspora bi bu tubaab yi seen pexe jooyoon kon kenn du fu ñëw wala bu ñëwee Paul la ñuy tudd wala François kon la sa maam ni woon inni uxaatibu nasara turra fii ardihim li maliki mu tarra tey xanoo bi ane ni lay abdun xadimu rasulillahi avela wu na tey mbakke bu nu demee Italie fukki kër sëriñ Touba ak juróom-ñaar ma nga fa ni fay lii wa ibqaahi wa fawzi bila anan bi kaw ni xadibal Mustafa te tabayyanu ba ca mujj ñu njëkk mujj ko obee muy Touba Monza ci seen tur laa kàddu ci wàllu njëkk wi muy sëñ naar moobay mu baax mi nga xam ne ki keroog bi ñuy jox caabi yi sëriñ bi dañ ko boole ak rongoñ ñu ko mbàkkee mi ngi nii di alalu seexul xadim mu delloo waat leen liggéey mu sëñ Mamoun Cheikh Mouhamadoul Moutada muy fukkeelu kër sëriñ Touba ak juróom-ñaar bu raabitatu wasilatu ruboox nekk Touba Italie ci nitu sëriñ daam ngay safar kon mbàkkee nu ngi ñaan sëñ Touba nga defal nu ci tawféex ba liggéey bañ ca bëgg muy jàngale fa diine ak yaatal ko suñu borom motali ko geneen gi ci des mbàkkee mooy di la ñaanal suñu borom yàggal fi ndax kat tubaab bu ñu wax Pierre dafay wax ne aux âmes la bonne temps des années ku ñu waajal ci juddu ak askan Mbàkke Serigne Touba macha allah dalaa tibbal fi mu tibbee muy Mbàkke ak mbusoo bi kon tukki ayat ci ay sayir teewul Mbàkke doy bu fees dell ak taxawaay bi yàlla na li yàlla gën a taxawu yàlla na suñu borom gën laa dolli ay ndam kaddu Serigne Touba gi yàlla na yàgg cëw téeméeri at ak fukk ndax Mbàkke ab sakk nga ci yoon bi ab tiitar nga ci yoon bi yaatal nga jàppale nga jàpp nga diaspora bi jotaay bii nga leen di beral at mu nekk ak jot mayu la ko te boo yebaloon Cheikh Ibrahima Fall mu mën ñu recevoir ñun ñëpp kon nu ñaan nag nga ñu ñaanal suñu borom mu nangu nu liggéey bi ndax kan mbàkke ay murit a nga fa dégguñu wolof dégguñu séeréer dégguñu bambara boo ne murit mu ne mbàkke te déggul wolof loolu sa maam mooy ndamam mooy xam kon kër ya fa am na doon ay barabu defarukaay ni Touba waj algu defan maskana taallumi wa mawdi'al fikrati wa tafahumi wa maskana irshadi wa taalimi wa maskana ni ko sa maam ñaane ci Matlabul Fawzayni noo ngi wàcce kaddu yu mbàkke ndax yellu ci ñun ci sa kanam yëkkati kaddu di la ñaan nag mbàkk nga ñaanul ndax mbooloo mi am na kuréel gu ko war a tënk gu war judd ci mois de septembre bi muy amdan du haute alliance des mourides de la diaspora et leur ansar muy kuréel gi dajale juróom fukki réew ci àdduna bi mboolem jóoriñ ju fi teew jóge ci diaspora bi yëg nga ko incha allahu rabbi ci septembre la ñu def assemblée générale constitutive ngir saxal ko yal na ci yàlla defal ndam te ñu day teg waqdi awaahijal lazina daamu fi xidmati wa ablahu maadamu wal tuf bina wa qawwina wa kun lana wa hablana usal xitaam rabbina wa salli ala nabi wa sallim wax barke borom tuba ko sëriñ xaadim caam mi fi mbokk taalibe yëpp waaw di nuyoo ñëpp di jiital nuyo bi ci suñu kilifa bu baax gi toog suñu toog ak ñun ci jotaay bi euh, di ni rek euh, bi mooy suñu yoon wu njëkk ñu teew ci jotaay bi ñëw fi ci ndigalu jëwriñ yi nga xam ne ñoo yor liggéey bi foofu ci Scandin euh, suñu dëkk ba Norvège di ci jiital sañ Baara Mbegere mi nga xam ne moo jiite liggéey bi ak mbokk jëwriñ yi mu ko bokkal yëpp Euh, di wax ni rek xanaa dañuy tënk rek ndax ab sëñ Ablaye Diop mii ñu toogal ñoo bokk nekk ca fédération Scandinavie bi nga xam ni Norvège ak Suède ak Danemark ak euh, Finlande ñoo ko mujj bokk ndax dëkk la ñun dëkk yi ñu nekkee dafay dëkk yoo xam ni sénégalais yi néew nañ fa lool ba nga xam ni jéem nañ lu ne waaye dañuy def li ñuy def bu gan yi ñibbee ñun ñu des fa nekk mbooloo mu néew waaye lépp lu daayira yu mag yi di def ci yeneen dëkk yi ñun jéem nañ ko waaye buñ ko jéemee ba noppi bu gan yi ñibbee dañuy desaat nekk mbooloo mu néew duñu duñu mën lu bari ba nga xam ne dañoo mujj booloo ñun dëkk yi nga xam ñoo nekk ci Scandinave yëpp euh, fas yéene ànd liggéeyandoo di yëkkatendoo di dóorandoo yàlla dogal na ni ren jàpp nañ sax bés xam naa si Ablaay mii mooy jëwriñ ji moom dina ko gën a leeral waaw di sàkku rek ay ñaan ci sëriñ bi di newoon rek man moom loolu rek laa newoon na fexe mu tàbbi ci noppam muy dañoo néew loolu doole foofu te mosuñoo yëkkati dara ba sàkku ci ndimbalu kenn lu ñuy def ci suñuy poste li ñuy tibbee di ko def xaaruñu nguur lijjantiwuñu jàppale di ñaan ngeen gën ñoo ñaanal ci ni nga xam ne noonu la Sëñ Tuubaa di doolelee ay nitam ngeen ñaanal ñu ko ba ñu nit lu ñu song rek mu yomb lool ci ñun ñu wàcc foofu kàddu yi di tuub di jégalu dañuy jox kàddu gi sëñ Ablaye Diop Touba Suède auzu billahi mina seytaani rajim assalaatu wassalaam bi adadi ma fi infila alayka wala alika ya bi barkab Cheikh Omar Diop sëriñ bi ñu ngi lay nuyu di la siyaare di ko jaarale ci sëriñ Lamp Fall ak sëriñ Bamba mi nga xam ne ñooy sunuy jëwriñ ci ndaje mi ñu teew fi nag euh, di ci yëkkati kàddu ci ñaari fànn ndax dañ fi yëkkati kàddu ci troupe daayira Touba suwet ba nga xam ne sëriñ Abdou Khoudous Mbacké ibnu Cheikh Mouhamadul Mourtada moo fa nekk di taxawee lépp lu fa war lépp lu ñu war ci lislaam gi ma ngi koy taxawee ba mat sëkk ànd kook sëñ bàllaloo ak kilifa yépp yéen ca daara ja ñi ngi sant bu baax ñu delluwaat it di fi yëkkati ay kàddu doon njiital fédération bi nga xam ne moo boole daayira yi nekk ci Europe du Nord gi yépp te Suède nekk ci Danemark Finlande Islande ak yeneen dëkk yépp yi nga xam ne ñoo nekk ci Europe du Nord ñuy sàkkuwaat ñaan di sàkkuwaat ñaan bu baax ci sëriñ bi ndax ni ko sëriñ Xaadim waxee noonu la tëddee fële ca Scandinavie ba néew nañ fa lool waaye bis bu ne bis yi nga xam ne ñu ngi gis dëkk yu mag yi di ko def lu mel ne Italie France ñu nga koy jéem di ci def sunu kémtulay kàttan te yàlla dogal na ne saa suñ ko songee sëriñ bi wan na nañu moom moo nekk fépp rek kon loolu ñu ngi la koy gaaral sëriñ bi te it di am càkkutéef koo xam ne dañ koy càkku ci loo xam ne damay njiit moo xam ne maa jiite fédération bi muy bis bi nga xam ne dañ koy amal sëñ Touba te fédération bi di ko organiser buñ ko yóbboo dëkk bii at ma ca topp nu yóbbu ko dëkk bële ndax li tax ñu koy defee noonu mooy danoo néew doole te bari wunu ren jii nag ñu koy amele fee ca Touba Suwet muy dëppoog le 28 octobre 2023 bii mu doon bis boo xam ne sëriñ basiiru Abdul Xaadir Mbàkke mi nga xam ne yaa yor kàddu yoon wi ñun de dañ doon sàkku sa teewaay ca bis booba ndax kat boor booba day boor bu ruqe boo xam ne ah naam njabootuk sëñ Touba gaa ngi fay ñëw waaye jàpp nañ ni yow sëriñ Bassirou Abdou Khader boo ñëwee teew ca sunu biir ca boor booba ah jàpp nan rafet nañ jot ne ne da nga fa tàgganti lu baree baree bare loo xam ne xëy na moonu fa të looloo tax invitation bi ñu defee ko nii ci kanamu mbooloo mi te it incha allah su ma jógee fii dinaa bind leetar boo xam ne dinaa la ko yónnee ngir bëgg nga ñëw teew ca bis boobu ah, sagal na ñun murit yi nga xam ne ñoo nekk ci Scandinavie bi ndax ndeysaan néew gën fa néew waa Italie ak France sëñ Bamba Mbuub mii xam na ci dara ñëw na fa ba tàyyi di ci jàpp ci ay waxtaan ak lu ne néew gun fa néew dafa tax ñoom ñu ñeewantuñu ba luñ xewle dañuy def ay avion yu bari di ñu ñëwal ngir yàlla jëmmi sañ Tuubaa sëñ làmp mii indi nañ ko fa ñaar ba ñetti yoon mu fay waxtaan te buy ñëw day indi mbooloo mu bari ndax néew gun fa néew waaye nag alhamdulilah murit yaa ngi fay ñëw te it ban njëkkee ñëw ci sëñ Saaliwu wax ko fa nekke wax ko nan fa néewee ak adde ju tuuti jan ko jox danañu dem leen sëñ Tuubaa dana fa indi murit yi te booba ba léegi noppiwu noo gis ku jóge Italie ak France di tàbbi ca dëkk ba kon dañuy wàcce foofu kàddu yi rek di ñaan yàlla ñu dajawaat fi déwén comme nin ko ñaane woon ci barkeb sëñ Tuubaa jërë ngeen jëf jërëjëf sëñ Ablaye Diop Suède xanaa rek ñu wax ne ñoo ngi nag sant ñëpp di wax ne sëriñ basiiru dey sëñ Ibrahima Fall làmp mii dana di yombal sunu digganteeg yow saa su ne ñu koy sant fii ci sa kanam saa yu ñëwee mooy yombal sunu giseeg yow mooy yombal sunu digganteeg yow te loolu du ci tay du ci dàcc tubaab bu ñuy wax Carpo nag dafa waxoon ci 1912 ne seul le mouridisme constitue la plateforme sur la se bâtira la forteresse et la conscience nationale ne yéen a ngi dàq murid yi di leen jëme fu ne bañ ñu jege appareil d'état bi waaye bu réew mi na am jom baa ñu am fulla baa nu liggéey faw nu jébbal seen bopp sëriñ Touba loolu tubaab bu ñuy wax karp moo ko waxoon Mbàkke te defe naa nag yegg si nañ ci noo ngi sant bu baax di la ñaanal fan wu gudd ak wér di la wax ni tam tubaab bi fi jëlee woon sëriñ Touba muy luy mutee boo demee tey ca Marseille kër ga mu dëkk ah kër sëñ Touba ku tiim te sëriñ bi waxoon na ko ne dinaa la fekk si ci seen réew yi bopp inni u xaatibu nasara turra fi ardihim li maliki murtara tayaqano bi annani lillahi abdun qadimun li rasulillahi je m'adresserai aux occidentaux sur leur propre territoire au nom du Seigneur à qui je me voue rassurez-vous que je ne me verserai jamais dans le gang obscur de la mécréance mon Seigneur ne me rétribue que dans la patience gloire au Seigneur à qui je cherche refuge et de lui découle mon contentement et ma délivrance sëriñ bi loolu la sama am waxoon tubaab yi def na ko léegi mu tam mi ko fi génne woon fii le 21 septembre 1895 xaside yaa ngi pàndang ci këram ca Marseille kafeeg Touba gaa ngi leen di xeeñ ba ñuy laaj lii lu mu doon ñu leen ka ngeen fa jële woon ca le 21 septembre dans le parc de Pernambouc moo dellu siwaat Mbàkke kon nu ngi sant bu baax asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu bokk taalibe yi ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen jottali nuyoob Cheikh Mouhamadou Mountakha mi fi jëmbi Serigne tey ci kaw suuf mu ñuy ñaan mu yàgg fi lool te ànd ak wér muy kàddu nuyu ak i cant ak ngërëm ndax jataay bii kat mi nga tàmbale ca suñu kilifa gu tedd ga Cheikh Saliou Mbacké moo ko santaane woon ci lañ ko jëkk defee ngir naw ak kañ jëf jure ji nga xam ne waa bitim réew ñu ngi ko def ci biir yoonu mu rawat na Touba at mu jotee bu màggal Touba gi jeexee ku fi nekkal Sëriñ Touba mboolem dawaa ir yëpp ku ci dana ñëw siyaare si sëriñ bi waaye lii nag day bis boo xam ne daleen ko moomale ngir sant leen ko ngir xam li ngeen di def ci biir yoon wi kon sëriñ bi nee na mi ngi leen di yóbbante nuyoo yéen ñi fi teew te teewal fi ñëpp ñene bitim réew te amoon yéene màggal si nañ xam ne suñ borom nongul na leen ndax suñ boroom balaa fay jëf day fay yéene ba noppi te innamal a'maalu binniyaat ñi am tawféex yi ñëw nag ñoo ëpp tawféex day mel ne rek laa yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fathi wa qaatala ulaa'ika a'zamu darajatan min allaziina anfaqu min ba'du waaye nag wa qaatalu kullan wa'ada Allaahu al-husnaa ñi am tawféex yi fekke ko nag loolu moom suñ borom leen ko defal kon na yàlla nañ ko yàlla nañ ko yàgg fekke di leen sant nag baax. leen gërëm di leen kañ ci seen jëf yee nga xam ne yéen a koy def ku ñëw ci seen biir dana xam ne Sëñ Tuubaa moo moom la suñu borom defal ndam ndax boo demee ci yaa jumlatan qad fallasoo bi dalaalihim man lam yakun waladun lahu aw waalidu axrajtumuni xiina bi annani abdul ilaahi wa innani la mujaahidu boo toppee xasida ga ba mu jeex dégg nga lam lu ci lam ci wax Eh, wax ngeen ne damay jihaat waaye samay jihaat bokk na li ngeen di jihaat yéen amal la si yata jasasul asraar lii fa tasawufun bu ci ne ak na ko indee kon moom ngànnaay yam doon jël di ko jëfandikoo moo dem ba mokkal àdduna sëpp moo dem ba yéen ñëpp ngeen ne fa am fa jàmm la fa Sëñ Tuubaa liggéey ngeen jëm jël di ko di ko indi fii ci dëkkam bu tedd bi kon na ngeen xam ne yàlla suñu borom moo leen fa yóbbu si allazi jaala lakum al arda zalulan xam famshu fii manaakibihaa wa kuluu min yi waaye na ngeen xam ne tànneefu Sëriñ Tuubaa mu leen fa yóbbu te li ci gën a yéeme bariwaa na lool nit ku ne fii melut na mu war a mel wala nekkul multasim waaye bu demee ba foofa jàng alxuraan xasida liggéeyal Sëriñ Tuubaa mooy doon ab liggéeyam taluñ leneen sax loolu nag Sëriñ Tuubaa defal leneen ko bari na lool mbooloo mu di jeex ñoo xam foofu lañ defaroo ba ci ñi jàng tubaab suñ tubaab de lépp di ci wan a xar baax neewoon na damay njëkkante ñoom koo xam ne njëkk naa leen ci ñoom damay ñoom xol yi koo xam ne njëkk naa leen ci moom ñàkk nañ ko bu faw kon suñ Xaadim Ngom mi doon wax léegi firnde la ci ndax yilif na ay tubaab yu bari taren ji yaa ngi ko gis mu mel ne murit ba gën a suufe mbubu te li muy togg ci màggat gi mën na junni mën ci kenn nit kon Sëriñ Tuubaa li ko suñu boon defal li mu ko fay kenn xamul fu mu toll loolu lépp di ay taw tawféex rek di leen soññaat ci liggéey ba nga xam ne suñu kilifa gu tedd ga Cheikh doon Mourtada moo ko fa bàyyi woon muy ci dëkk yëpp nag ndax moo ko ubbi xam nga Serigne Touba ku ne ak lam la defloo li suq li suq dawaaman futuxaatin akunu biha bushra liman bihudal islaami qaddaana moom la ko suñu borom jagleel moo ubbi bitim réew moo dajale taalibe Sëriñ Tuubaa yi sam fa lislaam tudde ko kër yàlla muy kër Sëriñ Tuubaa yi fu ci ne lam ci yéene woon mooy mu nekk jàkk nekk jàngalewukaay ndax boo wax moom xamoon na ndax seen dafa am basiiratu xamoon na dana dem ba li ëpp ci ñoom fa li ñu dëkk ndax ku ci ne boo génnee at ya ngay am bitim réew ak li ngay am Sénégal daanaka boo ko xool loolu ëpp sa sa njaboot dafa juddoo kon loolu bu ko waay jëlutoon nag ni ñi ñi nga xam ne danañ tubbi kenn du xam nu mu kon loolu ngeen gën caa defaat jiite gën a boole seen bopp loolu sax suñu borom defal na leen ko ndax Sëriñ Tuubaa moom moo ñaanal suñu borom ndox yaa rabbi ish'alil muridina maa fi xisnika alxasini wa samlaj maa moo tax murid yi bëggante gi ñu bëggante ak soppante gi ñu soppante sëñ ko bañ ndax li li war a indi loolu Sëriñ Tuubaa dindi na ko seen diggante moo tax ngeen gën a góor góorgóorluwaat ci bennoo gi. ndax ngeen gën a mën a jekku liggéeyam suñu Tuubaa bi kon daal ñu ngi yóbbante ñëpp cant ak ngërëm di leen ñaaxtale te rafetlu liggéey bi ngeen def ndax li ngeen def ci dëkk yu bari na tubaab boo ko doon xool boo fi génnee kër yi immigré yi dëkk boo yexee dana ëpp genn wàll gi kon yéen seen jëf ci dëkk bi kenn du ko naatable kon ñu ngi leen di sant yóbbante cant ñëpp leen gërëm di ñaan ñu teew fi na gën déwén jàmm te yàlla suñu borom kàttan gën leen a nooyal la dëkk yi it te foofu ngeen xam ne suñ Saliou daan leen ko bu ñu fa dee yëkkati xaside yi rek bu yàggee lépp dana mo lépp dana nooy xaside yi moom mooy nooyal lépp kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullah